ahlan bikum maire bu Kaolack Serigne Mbuub nee na fay laaj réew mi fay bokk 2024 allah l'observateur moo ñu ko xamal li tax nag mu nekk candidat 2024 nee na fa bëgg a wan sénégalais yi ne ndongo daara yi fa ñoo mën a bokk ci système bi ba pare jël ay ndomba tànk yi gën a kawe ba ci président de la république te lu mën a nekk la donte xam na ne du yomb waaye moom fam jaar politiciens yu mag ya nekk Kaolack mbuqi leen ci wote maire ba fa la bëgg a jaar ba mi baneen doomu bëgg a jël réew mi moom it candidat ñoo xamal ne mooy candidat bu pur vox populi na leen beneen candidat fa tàmbali tournée ngir ut parrainage bi ma nga woon ca diiwaanu Thiès ba am na fa parrainage ba mu soxla woon keneen ku nar a nekk candidat laaj réew mi mooy Cheikh Tidiane Gadio bi fi nekkoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu bitim réew réew mi yéene kaay fa ñoo xamal ne moom fa wax na nekku fi di xaar njiitëra Macky Sall di tànn benn bokk yaakaar candidat déedéet moom fay xaw yoonu boppam beneen candidat yi ga fa faa jaxasoo yow fa seen parti bi ndomba tànk yi te juróom benn weer moo des ci élection yi ba tax kàngam yu bëri ca PDS fañ koo ñaawlu léegi fañoo wax na nag lu ji njaaga Karim Wade mooy njaag moo santaane li ni mel te loolu waruñ ko def waxtu wi baaxut ci ñoom li baaxut ci ay attekat mooy xam askan wi ñoo xam ne fañ leen di attaqué fa ñaawlu seen liggéey fa wax naan fa far te njaaxaanaay wax ju ñaaw jooju nag ak attaqué yooyu njiital mbootaayu attekat yi ci Sénégal Ousmane Chimère a toog naan fay def analyse di wane naan attekat yi daal moomuñ seen bopp amuñ indépendance ak fañ leen di sant ñuy atte lu neex nguur ak yeneen yi ni mel te loolu du dëgg du yoon te baaxut yow fa ngay xool xam ndaje mu mag lañ doon xamal tey yéene kaay yu bëri ñoo xëy yéegañ la fa tukkee moo xam laas yéene kaay vox populi le quotidien ba ca enquête yéene kaay waaye fa ñoo xamal ne ka woon seen ndaje ma nag mooy jëwriñ dénk wàllug gi nga xam génne leen ca mbootaayu xeet ya au commissariat nations na ko yemut fa de nee na ngañ dem ba Touré bi nga xam ne fa daw dem Mali nee na loolu moom moo tànn def ko kon mi ngi koy ñaanal daw ak jàmm <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja moo ne mbiru Juan Branco avocat Ousmane Sonko tubaab ba tax na fi mu nii jàppaat nañ keneen ku bees ah, yaaw seetal njoogu loolu la xaritu maire bu sàngal kaam la këram lañ ko fekk ci guddi jàpp ko sandarma yaa ko def la def ñoom soxna Ousmane Sonko ya mooy ñaan njiitiram Macky Sall ak soxna Marème Faye Sall ñu génnee Ousmane Sonko ci njekk ca kaso ga le mandat yéene kaay ne kon gaañi seen gat sa gat sa ya fa mujj soppeeku ci masta masta ak mujj di ñaan jéggal le point yéene kaay mel ni ku naan gis ngeen Ousmane Sonko mii fa xaw yoonu faatu ñàkk bakkanam ci kaso gi ndax grève de a Abdou Lamine tekki ne fi mu ni fa jot dëgg dëgg dëgg ci njiiteram Macky Sall bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso balaa làmbaayee ñaaw ma ko waxee ca Dakar Presse Malick Gakou ne ma tamit loolu laay sàkku na ko njiiteram bàyyi mu génn kaso regard yéene kaay ni ku naan leen njiiteram Macky Sall moom ngeen di wax fi mu toll ni fañ koo invité Afrique du Sud ab sommet bu fa war a am Sud Quotidien séq waxtaan ak njiitu jëwrin bu réewu Mali fa daal di ci song a xamal ne dund gu cher gi jafe-jafe yi am jamono ji tax na gouvernement bi fa andi coppite ci frais inscription ci wàllu école yi ak li élèves yi fay ci école privée yi lépp fañ ko wàññi libération moom fa ñoo xamal ne mama kundul tey ci altine ji lay jàkkaarloog procureur ci la ñuy xam fañ ko yóbbu ca kaso ga tëj ko wala fañ koy bàyyi mu dem liñ koy toppee nag mooy ànd def lu bon tappale tiriyan ci wax lu du dëgg na ngaa biir te fekka loolu xamut ak wàllu complicité moom ak ña ko ca doon jàppale ña ñu jàpp ci wàllu médicament ñu ko xamal mais tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn góor jigéen ñaar ba fukki góor jigéen ñoom la ñu bett ci benn appartement néeg ñu doon def yëfu saay-saay ca seen biir allah turbine yéen a ñu ko xamal yëf yaa nga amee ca ndakaaru cité mixta takk der ya ñoo leen fa fekk jàpp leen yaw fa ngay xool ña gën a bëri ca góor jigéen yooyu ñu jàpp ay tailleur lañ ka ca gën mag ñaar fukki ak juróom-ñeent la xam ginnaaw bu leen takk dere jàppee nag tey jii la ñuy jàkkaarloo ak attekat ba a kaay na ba leen takk dere ñoo fekk ci seen biir ay jumtuwaay yoo xam ne fañ ko doon jëfandikoo bi ñuy ànd ay mbir yu garaaw ah, ba kenn mënu leen ko wax tey nag buñ jàkkaarloog àttekat ba ci la ñu xam ndax fañ leen di jàll tëj kaso wala boog fañ leen di bàyyi